wa zakkilu bi waftaxan rabbiliya fatxan mubinan la yura li misliya wa habli xazaxatan wa nuura wa fi siraati yasirin murura waj'al kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida barke borom Tuuba mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp tey ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne moom la ñu nekk te mooy sëru Ramadan al mubarak ngeen ànd seeg seen mbokkum taalibe seen xarit seen soppe muy Serigne Khadim Samb si émission xidmatul xadim bi nga xam ne ñoo ngi koy amoon fii ci Faaida TV di nuyu mbooleem soppe yi ak xarit yi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi mu man ni bu ci tuddee oustaz Lamine di borom xam-xam di ko baax di ko sell. moo ko sëriñ Moxtaar suñu sopp suñu xarit ak sëriñ Assane ñu tegal ci képp koo xam ne ñoo ngi ci kër gi di donkant rek ak boroom xam-xam yëpp comme niñ ko daan defee ci waxtu wi rek na sëriñ bi waxoon ca jawgaru nafis lañuy wax boroom xam-xam yëpp mooy mu'taziran li kulli xibrin di adab xabiran naxwin wa aradin wa adab tey nañu dikkoon ak yéen ci seen émission xidmatul xadim ci thème bu am solo muy asayxul xadim war ramadaan muy Serigne Touba xadim rasul ak weeru koor ndax Serigne Touba kat weer woo dugg ci weer da ca am jagle koo xam ne ku dul moom amoo ko ndax waxuma la weeri sax mais seexul xadim nee na waxtu yi sax man na ñuy bëgg ngir sama jëf ak sama wax man Serigne Touba ndax nee na wa sirtu furxatal wu xóoti bi amali wa kallimi mujj naa nekk mbégum waxtu yépp man Serigne Touba xadim rasul te li ma ko may mooy samay jëf ak samay wax daana wax moom Seexul Xadiim ni bis yi ak weer yi yëpp dinañ ma seedeel ci kanamu sama borom waaye kay njëkk doon sama seede mooy yàlla sama borom ndax suhuuru rabbiya gadan sama seede nag mooy yàlla sama borom ndax ci weer bii di weeru koor Seexul Xadiim da cee am jagle goo xam ne ku dul moom amoo ndax doy na ndam yoon wii di yoonu murit Serigne Touba mu ngi ko sos ci weeru koor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tombe bisu ajuma ci la Seyxul Xadim Xaadimu Rasul sos ko yonent bi feeñoo ni ko rabbi asxaabaka bil himma si fa xat ba mu xëyee ca ajuma ja moom Seyxul Xadim ca la woote yoonu murit kon ci weeru koor ci la sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul sos yoonam bi nga xamante ne mooy at tarixa al muridiyya waaye doy na ndam yàlla jox ko ci teraanga mu yëkkati njaboot jox ko ci muy Serigne Souhaïbou Mbacké mi nga xam ne kenn na ci njabootu Serigne Touba ji mu ngi feeñ ci juróomi fan ci weeru koor te mooy teraanga joo xam ne yàlla moo ko defal Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon Serigne bi da cee am ay jagle waaye doy na ndam indee grande figure du mouridisme remarquablement intelligent di maam Cheikh Ibrahima Fall. bi muy jël boppam di ko jox Seexul Xadiim mu ngi ko jox boppam waaye ci ñaar fukki fan ci weeru koor ndax ñeenti fan ci weeru koor ci la waxante wa tàmbali waaye mu nga tey ci ñaar fukki fan ci la wéree moom la Cheikh Moussa Ka di wax ni ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bisu dibéer la mbir mu wóor maam Cheikh Ibrahima Fall yaa rëy pexe kon jàmbaar jooju di maam Cheikh Ibrahima Fall ci weeru koor ci la jël ba boppam Serigne Touba Khadim Rasoul waaye doy na ndam wird wird wirdul maaxuus nga xam ne Serigne bi daana jaar ci ay Tiijaan jaar na ca wirdu Xaadir jaar na ca wirdu Saasali jaar na ca ba ñoom ñëpp ñu gërëm ko muy wax naa radiya anni sibtuhu Tiijaani radiya ni Abul Xasan ñëpp ñu gërëm ko ba yàlla jël wirdul boppam jox ko ko te sarsaara te bi ko koy jox mu ngi ko ko jox ci weeru koor moom Serigne Touba Khadim Rasoul te mooy al wird al maaxuus kon ci weeru koor ci la ko yàlla joxe Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye sëñ ci weeru koor ci la am naar alxuraan bu ko musaana wax ci naar yi lañ koy xamee ndax jàpp ni ko dàq waaye Serigne bi na naar boo xam ni alxuraan newul ci moom te askan ba mu bokk ku fa musaana la alxuraan waaye Serigne Modou Fall Seexul Xadiim moo ko sol alxuraan ci ñetti fan ci weeru koor ñetti fan la ko ko sol. ndax bis dafa ñëw ànd ay mbokkam sëñ Tuubaa ni ko loo bëgg mu ne ko Mbàkke man de alxuraan laa bëgg sëñ Tuubaa ni ko waxal li sa moroom wax mu ne ko Mbàkke man de alxuraan laa bëgg te askan moom bokk de ku ko mokkulul da ngay suufee lool man nga faa bañ a am sax soxna sëriñ Tuubaa ni ko demal bis a ngi ñëw dinaa la ko bis ñëw sëñ woo ko ni ko yaa fi doon ci alxuraan mu ne ko waaw Mbàkke sëñ Tuubaa ni ko randu si mu rand si sëñ Tuubaa jël loxo bi fëgg ko ci bopp bi ko mu tàmbale alif laam miim zaalikal kitaab ba am ñaar fukki isib sëñ Tuubaa ko kafaa doy mu deuxième mu dem deuxième jour ba mu ñëwaat sëñ Tuubaa fukkaat bopp bi ni ko yaa Mour Fall iqra mu tàmbale wala tujaadilu ba am ñaar fukki isib sëñ Tuubaa ne ko kafaa te troisième jour ba mu ñëwaat sëñ Tuubaa di ñaar fukki isib sëñ Tuubaa ko bis ni ki tey aadaytukal qur'aana tafsiran wa tajwidan wa tilaawatan yow Modou Fall bis ni ki tey jox nañ la alxuraan nga di ko jàng te doo ko xool jox nañ la alxuraan nga di ko tafsir te doo ko xool jox nañ la alxuraan nga ko bind te doo ko xool yaa Modou Fall yow Serigne Modou Fall alxuraan Modou Fall la tudd moo tax ñu koy dàqante ne Serigne Modou Fall alxuraan ngir dëgg ko Serigne Touba te mu ngi amee ci weeru continué Seexul Xadim defee loolu moo tax sëñ Basiru Mbàkke nee na bis sëñ Modou Fall sëñ Basiru nga koo laaj ne ko bi la sama baay fëggee sa bopp bi ana noo def mu ne ko basiru day bi sa baay fëggee ci sama bopp bi daa mel ne ana alxuraan yëpp dañ koo def ci genn ndaw ma jàkkaarloog moom def xar par xar ma jàkkaarloog moom kon Serigne ci weeru koor ci la solee Serigne Modou Fall alxuraan alxuraan kon kooku bu ne malakatul xuraan la tam ni kan yadum kon kooku kenn amu ca war a xam loo xam te ne moom nga cee sikki sàkk moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon lii lépp ay jagleem la moo tax fa mu doon wooree ku la fa yóbbuwoon ku dul sëñ Tuubaa nga di fa woore boo dee woor boo dee wax tamit leneen ngay wax waaye doo wax lu sëriñ Tuubaa di wax ndax boo demee ci xasidaam gii ndax sëriñ bi 1895 da départ Mbàkke Baari 96 97 98 ca maa yomba fala Seexul wax yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi di ko ndokkale weer ak di ko dalal te bu ko fekk ca ay noonam ndax moom daa génne si ay noon ànd ak i noon dem fekk ay noon dem ba jekk noonu yépp ne leen jékkal naa leen kon la maa rabbi de la tolérance mooy Serigne Touba naa bi gin ahda a turran salimtu min al ahda i turran afawtu an il ahda i turran di wacci man nafaakum li xayri sarmadan lastu adfam moo tax daana wax ni soxbaan tàggooguma waaye ramadaan it nuy seeguma kon soxbaan buy dem day tàggu Serigne waaye ramadaan yi suy ñëw day nuy si Serigne Touba xaadimu rasul moo tax boo demee ca xaj rek xayra day fin sëñ Matar sëñ Touba daa bëri ay xarit moo wax la tey benn képp ku baax xaritu nga waaye lépp lu baax yi xaritu Serigne Touba nga yenn saa yi nga dégg mu yàlla mooy sama xarit yenn saa yi nga dégg alxuraan mooy sama xarit ndax yaa kitaabal karimi anta xalili wa xabibi wa kunta xablu tabibi yow alxuraan yaay sama soppe yaay sama xarit yaay sama docteur amatuma benn docteur bu doon alxuraanul karim yenn saa yi dégg mu ni rasulillahi mooy sama xarit yenn saa yi nga dégg mu ni man maay xaritub yàlla maay soppeb yàlla maay xaritub bi maay soppeb yenent bi ndax faraxani ak rëmu tafriixan yetu bi andi ni xillun wa xibbun kon képp ku baax soppeb Serigne Touba nga lépp lu baax soppeb Serigne Touba nga kon képp ku baaxit war ngaa jël Serigne Touba def a soppe si biir moo tax boo demee ca tarjumaan yaa xayra da ngay dégg muy wax ni xad istahala ramadaanul muazzam allahumma inna xabibi wa xalili sahru ramadan xad istahala alayya yowmul isnayni am xamsata asara wa salaasa miatin wa alf wa raxabtu bi wa sallamtu alayhi bi hadihi alxasida fa taxabbalaha minni wa barik li fiha waj'alha fawqa zanni fi daarayni allahumma rabb ramadan sallim li ramadan wa sallim ni li ramadan wa sallimhu minni wa sallim ni minhu waj'alhu mutaxabbala nee na weeru koor day weeru koor maanaam si na maanaam terusi na ci man Serigne Touba weeru koor bi nga xam ne mooy sama soppe mooy sama xarit ñu ne ko Mbàkke kan la ci ñëw ci yow mu ne teru na ci man bisub altine junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom ci la ci tombeeg bisub altine ci la ma gane si man Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi mu dikkee nag ma tatagal ko yaatal nuyu ko di wax yàlla na ma ko yàlla nangul te barkeel ko te defal ma ci lu kawe sama njort man Serigne moo xam ne ko nag yow mi nga xam ne yaay borom weeru koor ndax ma taar kenn moomul weeru koor yàlla asawmu lii wa ana ajzi bihi man yàlla koor maa ko moom te maa koy fayal sama xam nga lu tax loolu yàlla boo ci def ni ngi jàkkaarloo ak yow boo dee julli nit ngi lay gis boo dee natt azaka nit ngi lay gis boo dee aji màkk waaye koor koo waxul ne damaa moo tax mu ne as-sawmu lii wa ana kon maa ko moom te man maa koy fayal sama bopp moo tax Sëriñ Tuubaa yow mi nga xam ne yaay borom weeru koor yow yàlla na nga ma nuyul weeru koor na ma nuyul weeru koor yow yàlla sama bopp weeru koor kon sëñ Tuubaa yàlla doxal ci diggante bi pour wax yàlla ne ko na wax weeru koor ne ko Ahmadul Xadim ne na waaye weeru koor it waxaat Sëriñ Tuubaa wax ko neen Ahmadul Xadim man tamit maa ngi koy nuyu yàlla moom la doxal ci diggante bi yow mi nga xamante ni yaay weeru weeru koor yaay borom weeru koor na nga ma nuyul weeru koor yow yàlla sama borom waaye xasida gii nag mu ko defal mu doon xasida goo xam ni wala nuyoo bii nga defal ma ko loo xamante ne day doon loo xamante ne dañ koy nangu. dañ daal di dugg nag automatiquement ci xasida gi te xoolal yow sëñ Matar fa Sëriñ Tuubaa doon waxee xasida gi yomb gisul ndey gisul xarit gisul baay gisul taalibi gisul dara ci ay métit ak tumuranke nga gis ba muy dem nga naan xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraxat li a daxil la si anhul madiixu xasiyu sama kër yëpp a ngi nii gent na maa ngi nii di tàqale koog sama njaboot xoolal Serigne Modou Moustapha xoolal Serigne Fallou xoolal Cheikh Mouhamadou Amin xoola Cheikh Mouhamadul Bachir maa ngi tàqale ko njaboot gépp te dara yóbbu ma ko dul liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gisu fa kenn ku mën a seedeel li muy def ku dul ñaar ñi nga xam ne moo nekk ci ay màggam lakk sukuru wa ridwaanu minni wa saahidi raxibun atidun fil jazirati ma yomba liesat bi kaw nii abdaman yaxfiru zanba wa kaw nii xadiman mustafa baxru yomba nga xamante ni gisul kenn ñaar ñi nekk ci mbaggam la koy seedeel ak xasida gii bu ko nit ñi dee jàng da ngay daanu te bu ko musaana woor boog ndog jot nit ñi ku nekk yaa ngi am mburu di am tàndarma ngir bëgg koo doge waaye Seexul Xadiim du am sax tàndarma ku mu doge du gis ku ko jox sax tàndarma ku mu doge moom Serigne Touba lan lay def bañ a def li arab yi tuddee alwisa muy continue kool gi day di garab gi ko tiim lay dagg genn xob moom Serigne Touba ko ci gémma gi tucc ba mu leer ko ne ndox mi àddina ci biir dog na kooram mu yàgg xob bi sànni ko bu ko suba la moom Seexul Xadiim te sëñ Matar xoolal xasida gi ñu neexee yaa xayra dayfin ataa wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbooleen nu arab di ndokkalee yow gën gi gàpp kon weeru koor kan la ndax at mi fukki weer la ak ñaar te benn weer la cay doon kon gan la te gan maxaar ku ko am war nga koo teral moo tax mu ne ko yaa xayra day fi yow gën gi gan goo xam ne ataa indi nga la nga indi bil bisri ci mbégte wal madadi ak ay tëbb xéewal mataar weeru koor xéewal képp la ndax ëppaluwaa rahma wa wasatuha magfira wa axiruha ay tuxun min an naar fukki fan yi njëkk yi yërmande la yi ci digg bi njéggal la yi mujj ya tamit mooy goreel jàmm ci safara mu ne ko yow weeru koor doo denc doon gan goo xam ni da ngay ñëw di ñu indil mbégte ak ay tëbbu xéewal kon ma lay wax ni la ahlan dikk nga ci sa wa sahlan ak dikk nga ci ak jàpp ndal wa tarxiiban ak taragal rek bilaa adadin du du am benn limite du am benn yemuwaay yow daal ñëw nga ci sa ñoom ñëw nga ci ak yomb ñu ngi lay yaatal gan ku ko am dañ ko yaatal yaatal boo xamante ne nag amul benn lim wala amul boo xamante ne fa lay yem jàkkaarloo weer ba tey nan ko laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xiran taati wa sadadi mu ni ko lazilta doo deñ yow weeru koor day fan di gan kariman ku tedd waaye zairan koo xam dañ ñuy ziyaare abadan ba faaw sëñ Matar tam ku ko am di ko teral di ko jëndal ataaya wala nga wutal ko boisson wala nga defar ko ay ay ginaar njojal ko ko pour mu mën koo xéwloo ngir gan gi da koy teral Serigne Touba nag nee na weeru koy teralee mu ni mukarraman di ku ñu ci lan bi xirat taaxaati ci bernde topp yàlla wasale di ak njub la ñuy berndele kon weeru koor kenn du jox ay ginaar kenn du ko jox ataaya kenn du ko jox bisaab kenn du ko jox jinje ko jox dara lenn képp nga mën a terale weeru koor mooy mu karraman di ñu teral bi xirat taaxaati ci bernde topp yàlla wasale di ak njub kon loolu képp nga a terale weeru koor sëriñ bi continué moom ba tey naan ko muazzaman inda rabbil laa sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi wa rasad yow weeru koor mu asama doo dënd ku nu màggal fan inda rabbil ci kenn du yàlla buur bi nga xam ne laa sharika lahu kenn du ko bokkaal ak kenn ndax malikun lahu sarxun wa xarbun wax dëgg moom moom penku bi moom moom soowu bi moom moom lépp moom yàlla du ko bokk ak kenn ku ñu fa màggal na yow weeru koor waaye nag wa inda ahli tuqaa képp ku ragal yàlla rek. màggal nan la fa yow koor wala ay lu képp kuy borom xam-xam xam teraange yi nga indaale màggal na la yow weeru koor waaye war rasati képp kuy borom mu ñub rek xam teraange ji nga indi yow weeru koor dina la màggal ndax yow weeru koor ndax yow teraanga képp nga mu wax wax continuer ba tey ak weer bi naan ko la zilta maaxiya aw wa xaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min al la zilta doo deñ maaxiya aw zaarin di koo xam ne dangay far ay bakkaar wa xaadiya aw taarin di faj ay aajo wa taarida axyaarin min al xalati ak di daq lépp loo xam ne ay sikk la yu nekk ci biir xol weeru koor daf koy raxas ba mu set wicc arab mu riis Sëriñ dina wax xalaat di firi ak béyal waaye yenn wax xalaat fekk ab xol la xamante ne moom mooy nekk ci biir xol te weeru koor daf koy dindi ba mu set moo tax sëñ Bay Jaxate waxoon na ni jàppal sa xol bi defar sëñ Matar na sax bala nga faa dugg faa sa xol baax sol set wicc moom ngay am mën a dugg biir àjjana yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata bi xalbin salim sëñ Bay Jaxate ni jàppal sa xol bi defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sa xol moo lu mu xam sa kër lu mu jag-jag te sa xol tax ripp lu bon lu tax nga gën fa yàlla mbaama ngi ngonk ki xaj nga dëkke woon taaxi kam tey jëf lu bon ñoo ngi si biir suuf ñu jaw ay yar foo tollu dégg farañ kon weeru koor dafay dàq lépp loo xam ne ay sikkale yoo xam dafay nekk ci xol waaye weeru koor sëñ Matar dañuy jéng saytaane fu mu toll lépp lu waaye def ci bëccëgu weeru sa bakkan nga ko defee waaye du saytaane ndax buntu àjjana yëpp ibbi nañ ko buntu sawara yëpp tëj nañ ko ba pare jéng saytaane moo tax Serigne Touba ni wa saafidan kulla saytaani bi maa maahu wa mutqifan li zawil ihsani bi ras bi safati yow weeru koor doo dañ di jëng képp koo xam ne ak seytaane ak lépp lu ànd ak moom rek yow weeru koor danga koy jëng waaye da nga ñuy may ñeer képp koo xam ne borom mu rafetal la da nga ñuy may ak xéewal ak sell yow weeru koor képp nga mën ñi may waaye weeru koor sëñ Matar dafay dàq lépp loo xamante ne ay njàqare la ay xat-xat la lépp weeru koor koy dàq moo tax métit yi ñu ne ak tartar yi ak feebar bii ci ñoo ngi ñaan suñu borom ci darajay weeru koor bii ñu nekk mu dàqal ñu njàqare yi nga xamante ni moom moo daj àdduna wëngal këpp te mooy coronavirus bi nga xamante ni moo jaaxal ñëpp te jaaxalul yàlla moo tax mu ne ko wa musiban doo leen di dàq yow weeru koor kulla axsaan bépp njàqare na diixu bi ak bépp xat-xat boo xamante ni da ci nekk rek yow weeru koor danga koy dàq waaye nag fi dëhër ci diirub jamono af idatan ci xol yëpp yaa musiban naka di yow mi nga xamante ni woonaa yow mi nga xamante yaay dàq lépp loo xamante ne ak jàqare la wala ak métit la yow mi nga xamante ni yaay weeru koor lii lépp sëñ Matar sëriñ bi di ko wax weeru koor di feddali kóllëram ak weeru koor weeru koor nga xam ni wax naa la ko léegi am na ci jagle waaye alxuraan ci weeru koor la wàcc guddi gi gën a màgg te gën junniy weer ci weeru koor la nekk te mooy laylatul xadar fat ko màgg ci laylatu ci euh, weeru koor la amee woon waaye tamit aswatu badrin bi nga xam ne ci la lislaam amee ndam ci weeru koor ci la amee woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru moo tax sëriñ bi ba mu wax ci jës bul xul yooyu yeneen bi da ngay dégg mu a xadd xaama xayrul basari wastaxyaari zumari ila zawi takaburi fan la jëm ila zawi takaburi ba muy dem nu mu mel mu ni kal badri tasbihul mursal maa zukri fi adatu tasbih kal badri weer fukki fan ak ñeent bu nekk fan was an bu nekk ci dikk ay biddiw gis na damay leere mu ni Moustapha ba muy dem Badar leeraay ba ëpp na mu ni yow mun bi ngi sàddan di daal bis ba taroon ngi sàddal xitaal bis ba nga xamante ni xeex ba daa tar waaye yow ma taxaarifi rijaal bis boobu la góor ñi doon xamante yow ma ridaa ngërëm na ci ñi ànd ak Moustapha ndax ku ci dee na nga jëm waaye wala wala waja mi jàqaar na ci yéefari ndax ku ci dee tamit sawara mooy xare boobu nga xam ne ci lislaam amee ndam seen tubaab nee na doy nañu wëri beneen xare ndax bihi naa lil jinaan an ghazwatin wa an hawaan bihi lanaa taaba zamaan maa xabulil xidan kon nag fal nahmadillah nañ sant yàlla ndax ci la lislaam amee ndam ci la lislaam yëkkati ko lii lépp nag sëriñ bi di ko way weeru koor di fëttale kóllëreem ak weeru ko te bu ko musaana woor ba jot weer ba dogu jot du am tàndarma du am buru du am café du gis ko ko ko jox gisul soppi gisul xarit gisul àndandoo bu dee su jot sax du gis noonu yi du ko reetaan ndax xamuñu la muy def waaye mu koy seetal ñaar ñi nekk ci mbagg yi te képp kuy doomu aadama ànd nga ak ñoom muy raqiib ak atiid laka sukkur wa ridwaan minni wa saahidi raqiibun atiidun fil jasiirati maa yomba xam naa dañuy taxaw du foofu eh, xasida gi sax des na waaye émission bii di ñëw bu sooba yàlla dinañ ko ànd ak mbokki taalibe yi ci xasida yi nga xam ne moom la Serigne Touba doon def ci digganteem ak weeru koor moom Serigne Touba kon ñu ngi nuyu soppe yëpp di nuyu xarit yëpp di am ñoo xamante ni mënut a ñàkk nag ñu nuyu leen ñu mel ni sama waa kër famille ñi nga xamante ni samay soppe lañ samay xarit lañ boo ko tegee ci loxol Serigne Babacar Diagne. moom Serigne Abdou Dia mu tegal ko ci képp koo xamante ni rek ñu ngi ñuy participer ànd ak ñun ak di ñu seetaan di nuyu soxna maam Diarra Sylla ak Serigne Boubacar yi ak soxna Ndeye Guèye euh, Diène Kitiir di nuyu sëñ Maxtaar mi sama sopp sama xarit di nuyu mboolem koo xamante ni ñoom suñu asal ak képp kuy topp émission bi rek di ci ànd ak ñun ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaare te di la sant kon sëñ Maxtaar xam naa dañ koy yemale foofu ba émission biir ñëw bu soobee yàlla. ñu continuer ko ak mbokk taalibe yi ci xasida ak yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.